citoyen wax na ko fii nii c'est en fait entre une bourgeoisie qui au pouvoir c'est-à-dire qu'ils ont su Sonko a su à créer le système et l'antisystème entre les pauvres et les riches en réalité donc loolu moo tax dynamique social boobu noonu amoon na déjà avant ñu koy tëj boo xoolee dynamique boobu noonu sax moo tax ñu tëj ko hmm. waaw loolu moo tax ñu tëj ko donc donc ci ci renforcement dynamique boobu lañ nekk hmm. boo xoolee il avait déjà la sympathie des Sénégalais avant ñu koy tëj. Mhm. donc il commençait à mobiliser gis nañu élection législative bi nii c'est grâce à lui également 2019 2019 gis nañu également les législatives ça a également les locales également résultat bu mu ci am donc gis nañu ni mu ngi yoon ci benn courbe boo xamante ni courbe ascendante la loolu moo taxoon c'est ce qui lui a valu la prison alors que bu Macky Sall bi nii c'était pas ça boo xoolee bu Macky Sall bii nii on l'a enfermé d'abord c'est ensuite ci la am sympathie sénégalais yi nii même Karim Wade en a enfermé qui ah non de, de ouais. Euh, non moom est-ce que ko dàq PDS Macky kenn dàq ko PDS de waaw ah, bon dañ ko jël assemblée nationale bàyyi naa ba pare ñu leen delloo naa leen seen ndombay tànk waaw loolu <laughs> loolu presque dàq la en parce que lu toll ni présidence assemblée nationale bu ñu la dàqee foofu noonu c'est comme euh, si dañ la dàq ci parti bi boo xoolee Mimi Touré également bi ñu ko kiyee nii assemblée nationale bi ñu ko refusé loolu noonu alors qu'elle avait battu campagne pour la paix pour le Benno Bokk Yaakaar donc nañ ko mais en fait la dynamique euh, euh, pour pour le PASTEF c'est-à-dire que le PASTEF était dans une bonne dynamique déjà avant ñu tëj leader donc dynamique